acca mbokk yi ni ñu leen ko waxee ba tey ñu ngi ci sant Serigne Saliou soxna Salbe di suñu yaay ah, di taalibe Sëñ Tuba ku ko xam-xam ne moom taalibe Sëñ Tuba la yaay bay maa ngi leen sant yàlla bu baax di Seydina Mohamed sant nga del si tey doom sa xarit délégué Amar ngeen bokk Sëñ Tuba bokk Sëñ Saliou nga del waaw Modou Amar ñu ko naan délégué. sama doom la dafa jékki-jékki ma téléphone invité naa la ay jàng ah te man sëñ Touba ma ci woo rek ma wuyu ndax damay bëgg sëñ Touba boobu xale bu ndaw laa tey suñu borom def yàlla boole maag Modou Amar mu yëg man bëgg ma lool kon maanaam fu ma woo rek ko fay wuyu waaw di sant. macha allah ñu xam ko nga ànd euh, sa doom sëñ Mara Niass. mu wax doy na waar de nee na jamono jii moom yéen ñaar yéen a téye mbir mi. waaw xam nga sëñ Mara dafa di ku baax doon sama doom bëgg ma. saa Touba xale bi doon nekk ci wetu mu booleeg moom. saa Touba bi ma koy wax ko Modou Lo dina doon roi des arènes.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 gaa yi dégg ngeen. wallaahi waxlu ma kenn ànduma ak kenn la gis mu yanu palaat. yàlla rek laa àndal. Hmm. ànduma ak kenn ku dul yàlla yonent bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul. Hmm. wallaahi lazim si sunu borom. yàlla sama borom mi may woon. ma woonoon ci 2009 ne Macky Sall day doon président. Hmm. moo ma woon Ousmane Sonko yore palaat. te bu dee ab kab sax. ndam la xam naa ne bokkul waaye. sant rek. ñoom yii ñu jëm dinañ am yaakaar.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 Seydou Mouhamed Moustapha Sy moom mooy jox xaru tabaski Waly sama taaw bu góor bi amul beneen mbindeef bu ma amee kon waxaluma kenn yàlla rek laa waxal li gis rek laa wax waxuma pour lu neex kenn lu ma gis rek laay wax gis naa Ousmane Sonko koy yenu palaat sol costume yenu palaat loolu ah victoire la kontaan na jërëjëf jërëjëf góorlu non dama giñ laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi bàyyi naa làmb yàgg na bàyyi naa làmb na xam nga tey ku dem ba ñeme xoolal tey ku dem ba ñeme sama jëmm jeex man maa fi njëkk taxaw ne Balla Gaye ki muy bëreel dina ko daal man maa man maay wax wetu ndey joor la wetu wetu mooy tax suuf waaye làmb ji waaw ñoom ñaar kenn pare. kenn jékkul ku ci daan da ngaa fakkastalu kenn jékkul. Eh? waa kay Cheikh bi maa ngi lay fay. Mhm. di am mbégte. Mhm. Euh, di nuyu àdduna. Mhm. di nuyu suñu mbokk internet yi. di nuyu tamit borom bés bi. Euh, di nuyu bu baax it. Euh, soxna su baax su tedd si soxna Selbé kenn du ko présenté ci àdduna. muy biir réew muy bitim réew. ndax liggéeyam bu rafet. ñu ngi koy nuyu moom it. di wax tey dañ fee ñëwaan rek. fekk si Modou. délégué Amar. ni ko gaa yi xamee. sama wóllëre nag. ñu bokk Serigne Saliou. waaye man tey sama délégation yooyu yëpp dama jël lépp rek dugal ko ci délégation wu Soxna Salbé mii. waaw di sama yaay di sama mag di sama xarit. Mm-hmm. nga xam ne daanaka tey kàddu yu moom kàddu yi sant la rek. Mm-hmm. di ñaan bis bi suñ borom def fi tawféex. Mm-hmm. di ñaan it ci réew mi jàmm. di ñaan ci dëkk bi jàmm. ak nawetu jàmm di wax ñi ngi jéggalu mbokki àdduna yëpp nag mm-hmm. te di leen baalu àq di sàkku ci ñoom ñaan ñi ngi leen di ñaanal jàmm ak tawféex mm-hmm. Serigne Mara Niass euh, mu Serigne Saliou ñi ngi ci sant Serigne Saliou mm-hmm. waaye bu buñ ko tuddee rek xel yi day dem ci euh, liñ koy bàkke ci internet bi saa yoo waxee rek nit ñi dara seen gémmiñ waaw àdduna moom ñaar rek am euh, da coow baa nga bokk ci ñi ñuy coow waaw man nag damaa bëgg a bokk ci ñi ñuy coow bëggumaa bokku ci ñuy coow waaw yàlla nañu coow li lépp nag ak yëngu mi dal ci jàmm ak salaam àdduna ñaar yooyu fi am ñii dañuy coow ba ñii di bokk ci ñi ñuy coow. des fois ak yenn wax yi wala déranger wut. non man daa jékki-jékki ñëw rek mu mel ni dafa ëpp bës yeneen sëriñ yi. waaw man man nag xam nga <laughs> ku ne jaar na fi. waaw ku nekk it ñëw na fi. Mhm. waaye dafa fekk liggéey bii ñu nekk di wàllum sëriñ dara yàquwul nag ndax métier yëpp am na lu ne mais dafa fekk bu fekkee da ngaa fekk jamono say maas ak say nawle ak ñu la mag ak say moroom boo ñëwee da ngaa war a pourfe nag loolu képp la waaye man sëriñ sépp laa yéene jàmm waaye nag ku nekk ak sak ay ku nekk. ak sak ay. borom ay gi nag mi ngi nii toog. da wax ne fi ne nii yaa aye. waaw fi ne ku aye dama ne. waaw ku naan ba màndi demal tëri. bul yàqal ñi naan dugul ku ne jaar na fi man nag jëlewuma fi kenn. waaw bu ñuy wax loolu nag. ku ci mel ni kii. waaw man samay wax dafa am lu may wax nag nay leer. kii suñu kilifa la képp kuy ñaan. walla ngay seet ci miim réew. da nga koo war di jox àllarba. dëgg la waaw ak mag suñu kilifa yu mel ni moom. danaa ñëw ci moom. bi muy ñemee wax booba wax yombul. waaw booba wax yombul. waaye génération bii nekk fi di di kii kii. yàlla xam na ne de. tolluñu ma fii waaye waxaguma ko. boo ko waxee nag day am lu muy nuru. ndax ñaanaguma. waaw ñaandooguma. ak li ngay def lépp. déedéet jëf yi tàmbaleegul. ndax Serigne Saliou dafa am lum ñu dimbalee. dafa amit ngërëm loo xam ne damaa gëm na dama koo yanu. te yëf yi dama ne dama koy jëlee dimension bii jéem koo yóbbu fenn. te loolu tàmbaleegul lu ma taxawalagul. waaw dama ne bu ma nee nux ba hmm? ne lux dëkk bi yëpp te pourtant dama ne nux rek war naa def nux nux waaye boo waxee loolu mbaa coow du gën a bari boo tàmbalee. waaw fi mu ne fi mu ne fi mu ne fi mu ne fi li am. nga xam ne moom la nit ñi baaxoo di gis. mooy xeeti sëriñ yi damay faj li damay def lii. Hmm. man fi ne dama toll foo xam ne damay génn bis na leen lii mooy am te nii lay amee. wala kii dafiy jóge te nii la fiy jógee man ci yooyu laa nekk fi ne ak yeneen yoo xam ne dañ ko war a teg ci réew mi pa di waaw pa di wax ay non fii moom amul keneen ku fi nekk ñii yóbbu naa leen Gàmbi waaw ah, sëriñ si ñi fi nekkoon bu ma demee confrontation dañuy ñaan wàllu ngir dem confrontation xam naa man man maay sëriñ bu ma jógee jaar fii foofu lañuy ñuy jéem a jaar waaye lépp li ma leen di wax mooy boroom xew maa ngi di bu ko xew mi loolu laa ko naan ba mandi demal tëri. sama yaay xar ñu ñaan Serigne Saliou Samb <laughs> waxtaan kat baal ba ma ñëw kër ga jërëjëf jërëjëf